trompe de combat Macky Sall keroog bi mu nee man doot nekkatuma candidat lañu pare moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall Amadou Ba bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëkk dëkk dëkk rek na ko fonctionnaire nu mu mun yor anal gi yépp loolu rek jar na bañ ko maak moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñu am ñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliard amul bay jóge est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu. kon loolu rek doy na ñu ne kii man war lu mën a nekk président réew mi vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan dëkk sàngam la jógee du Sénégalais déedéet Sénégalais la. fii la juddoo jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe tout Sénégalais rek gënuma koo nekk Sénégalais tey ñëpp bu jógee ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ñun ay panafricains lañu ay sénégalais ñu dund feneen ñenn ñu dund fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam Sénégal la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn. bu ñu signal si kenn loolu baaxul suñuy natt dañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est-ce que bëgg na réew mi est-ce am na compétence leen nag première question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaari yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor na meñam di wax nee na ñu ngi lay attaqué bukki nag bu yobee waxambaane Amadou Ba mënu ñoo yàpp de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël mën ko tegal ci suuf eh. jiite nag direction générale des impôts ma yor syndicat yàgg naa laal lu mu warul laal man vérifié naa entreprise bi ñu ko ay milliards mu laal ko ku ko wàññi ma ne ko boo ko laalee ma diggaale ko yow. te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ngeen ko jox réew mi. danaa may ne ñu ne compétence compétence la. expérience expérience la ndax daal alal réew kon may lancer aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ngeen li ñuy wër di nga rek lañuy jëlaat dem ci kilifa diine yi waaw réew bi mu ngi en danger dañ ñoo rax ba ñoo leen rax ñun ñu neewoon ñoo leen rax ñoom ñoo jékki-jékki mu mel ni xal bu nekk seen loxo ñu sànni ñu ci biti ak terroriste ñu ngi ko génne nii ana ñan ñooñu la kii gëmul tarixa kii gëm wax waxatu ci yooyu ñu man tey moom la ñu jël pour koo def ci Diomaye manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme demal nga toog yi ñuy wax ay waxu tampale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communauté bi nga xam ne ñaari président yi génne woon na du le fekk ñu wax nañu def li nañu def nii mais le fait que dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes sénégalais nous reporter cette élection Nous sommes d'accord sénégalais sénégalais contre Abdou Diouf ci contre Abdou ci ñooñu dafa am terrorisme sénégalais j'ai beaucoup de respect pour ces anciens présidents mais sax il faut nous respecter peuple sénégalais Il faut mature choisir ces combats-là kon nañu ce wu est l'essentiel le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp nous lépp alal moo koy def Mais interpeller encore une fois le président Macky Sall parce que responsabilité là. la le schéma nous avons fait, ngir bëgg a def li ñu nous avons xam nañu schéma pour ngoonu élection bi ñu gaawantu ne gagné nañu à tel score gars yi génn FDS yi ñu ne parce que élection bu ñu xasee ba ñuy joxe nañu score rek ñun ñëpp xam nañu c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions te responsabilité la moom mooy président de la république kon xam nañ ni su élection yi jaaree yoon mënul am 15 pour cent ci réew mi mënu ko am.

waxtaanee nag damay Thank you.